du 28 mai 2021 wax ni tund wi fii yëpp boole ñu rattaché ko ci commune de loolu nag lu mu il y a 10 ans faut que ci ginnaaw na ko na ni découpage politique bi fi amoon dina indi correction moo découpage amu fi c'est une correction d'un découpage correction boobu nag moo tax ba ñu boole ñu waat ñu une commune bi loolu amee ma commencé dugg ci gox bi nag di xool fu ma dem ñu ne ma ñun de amuñu courant ñun de amuñu ndox ñun de bare nañu ay abri provisoire ñun de tali manqué na ñun de projet yi gisuñu ko et cetera ñu xam ni la charge est énorme elle est lourde mais nangu nañ ko yenu nangu nañ ko yenu pour plusieurs raisons d'abord commune dafa war a jariñ askanam yàlla def na nag suñu commune bokk dina bokk ci commune yi ëpp koom-koom ak alal ndax li mu bidoo moo tax koom-koom ak alal boobu nag dañ koy delloo askan ce ma bëgg mooy la commune commune bi ñu commune bi nan la def éclairage public ñu def éclairage public c'est ce que nous avons commencé depuis quatre mois nous avons éclairé Medina tchoubou nous avons éclairé Nouvel Horizon nous avons éclairé nous deux nous, allons, nous avons éclairé cité Badaou, nous avons éclairé cité bi Albert Royer nous avons éclairé Kër nous avons éclairé Kër nous avons éclairé Kounoun nous avons éclairé Kounoun nous avons éclairé Fas Kounoun nous avons démarré et tant d'autres cités Yohamni, xam ni ces cités et villages étaient dans le noir. Donc voilà une première mission, les premières réalisations Ensuite, on a trouvé des abris provisoires. On a trouvé des abris provisoires, on a réglé le problème. D'abord, une salle de classe équipée, élèves Nous avons une zone très excentrée où il n'y avait pas d'école. Eh bien, nous avons une salle de classe, Nous ci ay inauguré Nous sommes allés à Keur on nous a montré une école muy 2 boo xam amul abri eh bien on a enlevé les abris tabaxal avons ñaari salle de classe équipée, clôture clôturer école et on continue maintenant ce programme là en face ci école bi a ngi salle de classe parce qu'on avait trouvé deux abris provisoires on va les effacer et mettre des salles de classe Si c'était cité Hawadia on est en train de construire des salles de classe Si démé cité on est en train de construire des salles de classe Si c'était Kunun Central, on est en train de construire des salles de classe c'est ça qu'on attend d'une commune et c'est ça Que nous avons comme responsabilité pour rendre l'école... maintenant il y a un problème... nous avons vu la route là de 30 mètres man naa à l'époque j'étais président du conseil rural de Sangalkam lotissement bi man mako ko fi nga ngeen tudde ko Fass Kounoune man lotissement et j'avais mis une route de 30 mètres de large mais lima me constaté moi. 30 mètres bi laal nañ ko parce que 30 mom la doon visiter légui dem sommes ba central ba 30 mètres boobu dafa dem ba mu ba mu ju muy di wañéku parce que dañu jël ci 30 mètres bi def ci ay kër c'est inacceptable c'est pas normal que nous ayons une voie aussi large aussi importante ñu dem diko dag di ci def ay kër ça c'est pas acceptable Je demande... que ñu recenser ma kër yooyu pour qu'on règle définitivement ce problème. Moi, je vous dis, je vous dis, et tout ce que je vous demande, c'est que Mais on va régler tous les problèmes du normal, On va redresser toutes les situations anormales qui ont amené Parce que le diadoul, le d'un corps mais di tabax ci ay mbedd di wàññi ay mbedd di ko def ay kër ça c'est pas normal Daron donc nous allons apporter les rectificatifs bi ci des moy dinañu fexé ba lotissement yi fi amone yi fi bàyyi woon la wax de nga xamni ni nañ ci ay école nga xamni ni nañ ci ay terrain de football nga xamni ni nañ ci ay espace vert etc. que ñu reconstituer ko defaraat ko tek ko comme ni mo wara a parce que c'est ça qui est normal gis le cadre de vie cadre de vie dañ faut respecter parce que vous booy def lotissement da ngay xalaat ni fi de côté, mais xale yi juddu ëllëg xale yi am na lu ñu soxla xoolal dem naa Sagef 5 Demna Dalal Jàmm mais ils ont des problèmes de terrain de football mais on doit laisser ces espaces là nous créer un terrain de football et je voudrais rassurer nous nga xam ni ñoo nekk dalal jàmm gis sen terrain bi nak fofu dinañ waxtaan ak niko mom pour que ñu bayil len ko dina waxtaan ak président de la république son excellence monsieur Macky Sall pour que ñu bayil un terrain boobu ngeen yor nous avons un président qui travaille qui travaille pour son peuple et pour sa population pour un Sénégal pour tous un Sénégal de tous manam ñun ñi fi toog pays. ci pour Kounoune tay dañu bok ci njabootu président Macky Sall motax ñu war ko jappalé buñu dañuy concentré wu c'est vrai sur les élections territoriales mais nañu xamni dafa am fu ñu bokk tamit té dañ ko war revendiquer mbir mi du jappalé Oumar Gueye mosuma jël micro ni nañ ma jappalé bu masee am ak kuma ko mas a wax nañu wax ko fi parce que dama leen naan commune sangal kam momu mako ñun ñoko ko bokk lu tax ma naan leen ngeen jappalé ma nañu jappo ñu liggéey ko nous devons régler les problèmes que vous avez ici. Des problèmes difficiles qui datent de très longtemps. Mais vous nous Japon, je vous assure que Baren di Dewen Ngen Khol, Baren di Dewen Ngen Ni Ngen Bunye Gon Ngen Rattache Ngen Yaga Yaga Yaga. C'est ça notre ambition. Motor, je vous félicite. Les Cordou, je les félicite. Je félicite ñi nga xam ni ñoo parce que li am solo mooy ñëpp nañu bokk nañu bokk